ravie de vous retrouver encore pour un autre numéro de votre matinale Matin comme ni ñu koy defee du lundi au jeudi euh, di leen dégtal li nga xamante ni moom moo di seen rendez-vous d'information bi ñu sekk su ne ak suñu gan di ci ak moom ci lu jëm ci wàllu actualité tey ñu fas yéene fee dalal docteur Ismaïla Diallo nekk député ca Assemblée nationale féetee ca coalition Yewwi Askan Wi euh, ñu ngi lay nuyu docteur di la dalal ci plateau euh, Astou fay naa la donc maa ngi nuyu mbokku téléspectateur téléspectatrice su Euh, matin bonheur yëpp euh, donc di am contenté comme d'habitude ñëw fekkee émission bi di euh, xalaat rek ne wax dëgg yàlla incha allah lu ñu fa nar a waxtaanee dina nekk loo xam ne dina njëriñ les sénégalais incha allahu rabbi. voilà donc ci kanam tuuti dinañ waxtaanee ñaari ponk ci actualité bi mu di li xewoon démb ca assemblée nationale ak surtout li nga xamante ni nag moom moo jëm. ci mbirum élection yi ndax daal di nañu jàpp sax euh, date bi euh, loolu la ñuy dooree xibaar yi euh, mu nekk ñaari date yoo xamante ne benn bi mu ngi tukkee ci conseil constitutionnel mi wax ne le 31 mars maanaam fukki fan ak fanweeri fan ak benn ci euh, weeru mars bi ñu nekk la sàkk woon ngir ñu daal di ci euh, def li nga xam ne moom moo di élection yi premier tour waaye itam njiitum réew mi ci conseil conseil des ministres daal di xam ne ñaar fukki fan ak ñeent la bëgg moom ñu daal di ci def li nga xam ni moom moo di élection yi n'empêche que euh, on nous informe en tout cas aux dernières nouvelles ñi ngi wax rek ni conseil constitutionnel daal dinay prendre acte de cette date du chef de l'État donc concernant maintenant euh, le 24 mars donc mu mel ni boobu la ñuy mujjee euh, jàpp pour élection yi nga xamante ni moom moo di présidentielle yi ñu bëggoon dàq yóbbu ko ba le 2 juin euh, démb nag le conseil constitutionnel à travers une décision xamle ni rejeté na lépp loo xamante ni rek moom moo di dialogue bi lu mu daal di woon xamle. Euh, loolu li ci toftalu di communiqué bi nga xamante ni sax ci la ñuy daal di dooree communiqué conseil des ministres bi wax ci mbirum euh, élection et fixation de la date de la présidentielle au dimanche 24 mars 2024 euh, toujours ci boobule conseil des ministre bu juróom-benn fan bi ñu weesu la ñu xam ne ni kii di Sidiki Kaba moo fas yéene nekk kii di premier ministre gannaaw ba ñu dissoudre maanaam tas gouvernement bu euh, Amadou Ba bi moom Amadou Ba euh, daal di euh, wàccee nañ ko donte ba tey mi ngi nekk le candidat de Benno Bokk Yaakaar moom sax def na réaction am à travers un communiqué di xamle rek ni mi ngi jaajëfal njiitum réew mi fas yéene na donc jublu ci campagne électorale bi ngir mën a. Euh, jongante euh, ci ni mu waree ci li nga xam ni moom moo jëm ci élection yu ñu dëgmal euh, wax également ci assemblée nationale mu démb ñu daal di voté loi amnistie bi nga xamante ni moom mooy effacer fait yu amoon diggante mars 2021 jàpp février 2024 bii ñu nekk mu nekk nag li nga xamante ni doonoon na lu bëri woon en tout cas ay controverse ndax démb ci prise de parole yi rek dañ doon sentir carrément que ni am na ci loor ñoo xamante ni d'accorduñ ci ba mujjantal ba euh, voté nañ ko vote bi nag euh, nii la tëddee lu toll euh, ci 94 député ñoom ñoo ko daal di voté 48 yi ñoom ñoo 49 yi donc ñoom ñoo daal di contre boobu les lois am ci ñoo xamante ni ñaar ba ñett sax daanaka ñoom ñoo daal di abstenir wu ci boobu les lois amnistie kon nag euh, ñu mën a jàpp ni li ñu doon sàkku ci mbirum projet de loi boobu di amnistie ci événement yi fi xewoon mars 2021 ba 2024 bi ñu nekk lépp daal nañ koy effacer mu di ay crime ak euh, yenn ci déclaration yoo xamante ni ça a valu euh, des détentions à beaucoup de de de de de jeunes surtout euh, lépp daal nañ koy <coughs> effacer kon mën nañu xaar njeexitalu boobu les lois fi lekk fan yi ñu jëm ñu wax aussi ci li nga xam ni moom moo jëm toujours ci euh, boobule euh, ci xibaar yi donc ba tey euh, wax ci li nga xamante ni moom moo jëm ci xibaar yooyu taxaw ci conseil des ministre bi nga xamante ni donc moom laa doon leen wax sànq sax daal di nañ ko xamle ni dañu daal di rek fas yéene am gouvernement bu bees ñu koy xaar ni nag fii ak ay waxtu wala ay bés ci bi ñu dëgmal. rapidement ñu dem xool yéenekaay yi li ci gën a fës la revue des titres ñu ànd ci ak régie daal di xool li nga xamante ni tey journaux yi moom la ñu xëyee à la une de ce jour dooree ko libération mu ñëw ci ñaari décision yi nga xamante ni conseil constitutionnel génnee na ko euh, décret présidentiel yi ak vote loi amnistie remue ménage la ñu daal di gis au sommet loolu lañ daal di xamle à la une euh, du quotidien Libération Le Soleil nu parle de ces décisions euh, yi nga xamante ni moom la ñu gis démb ci euh, foofu ci démb gannaaw ci ngoon gi ay décision yu bëri daal di génn ci li nga xamante ni moom moo tukkee assemblée nationale tukkee également ci conseil des ministres waaye surtout ci li nga xamante ni moom moo tukkee ca conseil constitutionnel ku ci nekk daal di génnee décision boo xamante ni en tout cas sentir nañ un chamboulement ci euh, ci république bi euh, Dakar Times daal di ne euh, Macky Sall dafa daal di rek libéré Amadou Ba ngir mu dem def campagne am bennoo tax mu daal di koy génne ci gouvernement bi tas ko va lancer ta campagne loolu mooy kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko d'après Dakar Times qui nous informe Ceci à la une du jour. Critique nous parle du projet de loi portant amnistie les honorables se de sang mu mel ni daal li fi xewoon lépp ci événement ñoom daal nañu koy euh, jël teg ko seen ndodd bu sukkandiku ci yéenekaay bi di critique quotidien jóge ci critique daal di taxaw ci tribune mu ñëw ci 86 euh, morts yi nga xamante ni dénombré leen leen entre 2021 ba 2024 njiitum réew mi daal di am une amnistie nous informe Tribune muy la loi boo xamante ni jàpp nañ ni dafa bëgg rek protéger ay jegeñaaleem projet bi nag daal di nañ koy adopté à 94 voix contre 48 et deux abstentions. Les Échos nous parlent de cette date de l'élection présidentielle bi nga xam ne mujjee nañ ko xam au urnes le 24 mars en plein carême et en plein ramadan ci weeru koor bi lay tombeel tombeel également ci kooru Euh, chrétiens yi les sages imposent leur force ak ñi nga xamante ni également ñoom ñooy candidats validés yi ñoom la ñu maintenir ba tey mu di 19 yooyu Amadou Mame Diop moom moo fas yéene nekk le président après 2 euh, avril toujours selon euh, les échos bu ci jógee taxaw ci le quotidien mi ñëw ci mbirum organisation élection yi ak juróom-ñaari sages yi nga xam ni dafa dañu daal di bloqué Macky Sall mi wax également ba tey ci le quotidien ni rejeté nañ ñoom conclusion wu dialogue yi lépp lu ñu fa waxtaanee woon daal di nañ koy dàkk Macky daal di fixé le scrutin le 24 mars euh, de au 24 mars 2024. Direct News dafa ñëw ci ba tey mbirum bras de bi en am entre Macky ak conseil constitutionnel ñoom gis-gis boobu lañ ci am le président de la République a fixé l'élection présidentielle au 24 mars. par ailleurs euh, dafa daal di tas gouvernement bi am également premier ministre bu bees muy Sidiki Kaba ginnaaw direct news le réveil euh, aussi nous parle de euh, cette présidentielle 2024 ñu ne daal kii di njiitum réew mi dañ ko daal di désavoué te ku fa jaar mu di conseil constitutionnel wax nañ également ci jamono ji PDS sa position posture moom moo di c'est le grand perdant ci li nga xamante ni moom moo ci am daanaka moo si gën a am ay jafe-jafe ndax moom la mu doon sàkk depuis le début mu jéewul am le grand panel nous parle de vote de la loi d'amnistie assemblée nationale daal di euh, effacer lépp loo xamante ni ay ñaawteef la woon am diggante 2021 ba jamono ji ñu nekk organisation élection yi également mën nañ ni yemm na ngir ñu daal di euh, dem euh, ci élection yi le 24 mars 2024 l'observateur aussi ci présidentiel boobu la daal di taxaw ak péripéties yi ci am mu nekk nag choix wu li nga xam ni moom moo di 24 mars bi taxaw nañ ci conseil constitutionnel mi bañ vide juridique am euh, ba daal di tax mu jël li nga xam ni moom moo di ay responsabilités lépp mi ngi ci biir yéenekaay bi di l'observateur fii la ñuy daal di euh, wala sax ñu taxaw ci Sud Quotidien balaa ñuy jeexal euh, lii di yéenekaay yi ñu ñëw ci présidentielle 2024 euh, mu ne game over mu mel ni fii la mbir yi di yem ndax conseil constitutionnel daal di siffler la fin de la récréation ginnaaw ba ñu daal di rek convoquer le collège électoral à la date du 31 mars 2024 li moo nekkoon li gënoon fës ci yéenekaay yi ñu daal di door waxtaan wi. ak suñu gan comme nu ma leen ko doon waxee tout à l'heure honorable député docteur Ismaïla jàlloo lañ fi dalal euh, nekk ci coalition Yewwi Askan Wi euh, ci biir euh, ci groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi alors fi ñuy dooree mooy conseil constitutionnel mm-hmm. honorable démb mu daal di génneewaat beneen décision bu nga xamante ni lépp lu ñu tënkoon wala boog tënkoon ci dialogue bi mm-hmm. nee nañ à travers cette décision que ñoom d'accord ci ba sax mujjee ñu jël date du 31 mars noo gisee de manière globale démarche du conseil constitutionnel waaw toujours bon dans son rôle souvent à chaque fois bu ñu nekkee ci euh, situation yi mel nii euh, surtout en matière électorale euh, dañ koy saisir pour di ko laaj ci ban taxawaay la ci lañ ci war a am parce que moom il dit le droit donc ce qui s'est passé booy seet conseil constitutionnel ñaari décision la génne parce que le président de la république à l'issue du dialogue da ko saisir pour laaj ko ndax mun na yóbbu datu élection yi au 2 juin Euh, euh, ndax moom mun na fi toog au delà du 2 juin laaj na ko loolu aussi tamit mais loolu yëpp da ko ko da ko réfuté ne ko munoo euh, def élection yi au delà du mandat. Mm-hmm. donc loolu moo indi mu rejeté le 2 juin bi parce que booy seet dañu rejeté 2 juin bi mais également wax ko ne ko au delà de ton mandat aussi tam munoo fi toog. Mm-hmm. suppléance bi kii moom moo koy assuré. le président de l'Assemblée nationale. loolu moo indi le président de la république booy seet moom aussi tamit mu jàpp date mais avant loolu da ngay gis ne le candidats les seize candidats aussi tamit dañu saisiroon conseil constitutionnel loolu moom moo indi conseil doon ko laaj pour que euh, mu mu jàppal leen date loolu moom moo indi ñu jàpp le en mars bi. jàpp na jàpp na ba wax leen ne aussi tamit que ne président de la république sur l' article 36 2 bi que ne moom au delà de son mandat waratul mën a nekk le président la république du Sénégal. Euh, te bu nekkul président la République du Sénégal suppléant sam euh, assemblée nationale le président de l' assemblée nationale rek moom moo ko mun a moo ko mun a wutu foofu en attendant ñuy eggale processus bi donc lu boo seetloo dans la journée dañuy am ñaari décision yooyu loolu moom moo indi le président la République aussi jàpp date président euh, conseil constitutionnel jàpp date mais à la fin de la journée wu maa ngi koy dégg nga koy wax léegi dangay gis ne conseil constitutionnel dafa aligné wu ci datu président de euh, de la république mooy le 24 mars bi. noo leen gisee marge bi euh, diggante boobu noonu dinañ fi mën a def parce que campagne bi moom mënatul nekk 21 euh, jours yi nga xamante ni habituellement moom la ñu tàmm di def traditionnellement mm-hmm. tey noo gisee les délais. ak surtout dafay la date choisie. dafa tey dafa tey xel bu baax a baax quoi parce que bon en fait euh, normalement ñun ñun yëpp dañoo waroon tënku ci calendrier républicain bi. parce que tey jii waroon nañu xam kan mooy le nouveau président de la république du Sénégal bu ñu bu fekkoon ne tey lépp jaar na yoon euh, donc loolu moom moo regrettable loolu moo regrettable mun nañu wax ne depuis 1960 euh, ba ñu jëlee suñu réew ba tey ñu ngi def ay élection mais da ngay seet en 2024 ñu tëlee mun a def élection pour pour pour pour pour une démocratie majeure au Sénégal donc loolu rek déjà mooy wane ne euh, président Macky Sall. bon dafa am fin bu fin bu triste en quelque sorte parce que il devait pas faire moins que ses prédécesseurs donc ce qui s'est passé nii lii c'est c'est c'est c'est une situation inédite euh, dans l'histoire politique du Sénégal que ñu toog mënuñu organiser ay élections lan moo ko waral mooy euh, au lieu que nga jublu ci li nga xam ne moom la la moom la moom la moom la askan bi soxla au lieu que nga tënku ci li nga xam ne moom mooy constitution bi mais nga nekk ci ay yitte yi kan moo war a bokk kan moo warul bokk ban ban candidat parce que boo seetloo durant le règne euh, tout le euh, tout tout le règne du président Macky Sall à chaque fois da ngay gis ne dañuy brimer un opposant potentiel candidat nga xam ne war na ko mën a remplacer depuis euh, deux mille depuis c'est là dans l'affaire Khalifa Sall dans l'affaire Karim Wade ba tey jii ñu wàcc Ousmane Sonko mais nag dafay toll ci àdduna yàlla mënu laa may lépp donc da nga dem ba benn situation yow sa bopp yaay dem ba da nekk ci impasse man je pense que impasse bi moom moo ñu moo ko impasse président Macky Sall nga xam ne dafa toppoon euh, ay yitteem topp ay ñagalaaneem kii ne ñun ñoo war a toog ci réew mi ba far nag situation bi tegu suñu kaw léegi nag c'est regrettable on va allons vers des élections yoo xam ne dina xaw a difficile mais bon. Euh, rien n'est impossible mais yaakaar nga ni dafa nar a am ay perturbations ci déroulement campagne bi ak élection yi en tant que telle. élection ay perturbations <laughs> am na amoon na ba pare. amoon na ba pare je veux tey euh, euh, campagne bi ngeen naka dem rétrécir par exemple raccourcir euh, le nombre de jours danga demee noonu également ci élection yi est-ce que yaakaar nga ni buñ ko évaluer mën na indi ay rëkk-rëkk surtout ci ci li nga xam moom moo di performance su candidats yi ak peut-être seen diggante vis-à-vis ak les populations oui bien sûr absolument parce que booy seet candidats yi am na ay dépenses yoo xam ne jotoon nañ ko def ba pare Euh, di pré ba ñuy préparer le vingt cinq mais boo seetloo depuis euh, euh, date boobu ñu jëloon ba war a dem le vingt cinq boo seetloo cacophonie moo amoon il y avait que des marches. Mm-hmm. boo seetloo ñun ñi nga xam ne tey ji soon on est des coordonnateurs départ départementaux waroon a wàcc ci terrain bu yàgg mais ba léegi pour que ñu nekk en contact avec avec avec la population desoon na donc ce qui importe bu fekkee ne ce qui concerne wax dëgg yàlla li ma mun a xam mooy la coalition Diomaye président en tout cas li ñu waroon def yëpp def nañ ko en tout cas li waroon am yëpp am nañ ko comité électoraux yi nga xam ne war nañu am dans les communes mais également dans les départements loolu mettre nañ ko en place et puis nos représentant aussi dans nos bureaux de vote yàlla dogal na leen loolu yëpp tegoon nañ ko sur place euh, maintenant li des rek mooy entre euh, en contact direct avec la population te yàlla dimbale nañu ci loolu euh, ñun musuñ ci wàcc boo seetloo le PASTEF ou l'ex-PASTEF comme vous le bien ñoom yàlla def na ne sénégalais yi euh, am na fu ñu leen teg donc wax ak ñoom mun na gën a fasil d' accord léegi bu ñu jógee ci conseil constitutionnel dem assemblée nationale ak démb li fa xew euh, balaa sax may ñëw ci li xew démb dafa am acte boo leen posé. yéen député yi nga xamante ne yéen a féetee ci ex Pastef comme mu di abstention mu doon loo xamante ni pour euh, ñu bëri lu bett lu bette la parce que euh, mënuñu woon yaakaar ne yéen di ngeen am xeetu position yu mel noonu comme lu naan neutralité yu dem noonu parce que dañ ko doon gis ne yéen da ngeen ko doon dénoncer lan moo indi abstention boobu au sein de la commission technique voilà merci beaucoup bon man moom euh, mun naa je suis à l'aise euh, sur cette question parce que je suis membre de de la commission des lois. ci mm. euh, euh, coalition ci ci kii bi ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ce qui se passe souvent en commission xam nga sax li xew commission sax souvent du génn lii xew commission d'habitude parce que lu bëri jaar na fi parce que waaw mais xam nga on est à. waaw mais cette fois-ci sax. à la question que nous devons se pourquoi. le nos comportements en commission cette fois-ci mu génn ba médias yi jot si. parce qu'on très important c'est très important donc lu tax loolu loolu man dama pose la question à savoir moo tax foofu de quelque part mm, euh, no non quelque part sax damay tax ñoo nos no n'ont pas joué franc parce que ñun d'habitude en commission dañuy jouer dañuy jouer neutralité surtout sur les questions sur les procédures d'urgence. même c'est pas la première fois la première fois. bu bu mais ndox normal que bu loi ñëwee si yow surtout en procédure d'urgence loi boo xam ne tey jii yow prise de contact bi ay 24 heures la ñu ñëw teg ko sur la table rek jox la ko da mën a ñëw jël jël une décision hâtive comme ça déedéet da ngay toog nga càmbar ko càmbar ko ak ay experts mais bu rapport résolution sur le rapport moom moo gën a grave foofu te dañoo abstenir pourtant personne n'en a parlé. ci en en commission des lois en commission on s'est mais cette fois-ci ñu abstenir. waaw moom bu nekk ñun parce que ñun lu ñu jaaxal mooy suñu allié lan moo tax ñu def non catégorie alors que d'habitude dañ doon toog waxtaanee ko dem toog ñu ne décision bii la ñuy jël léegi nag suñu demee dajeeg suñu experts parce que am nañ cabinet d'experts boo xam ne souvent lépp lu ñu jot ci loi ci euh, résolution dañuy toog waxtaanee ko ñu ne après la décision finale sera ça après des questions parce que boo demee commission technique souvent danga fay poser ay questions souvent vous voulez améliorer le le le projet de loi wala am na ci loo xam ne Euh, euh, soxalu la wala xam nga ne du soxal askan bi nga bëgg ko mhm. loolu moom moo indi souvent euh, ñu naan nañu nañu tey parce que ça nous arrive comme code de l'environnement defoon nañ 26 amendements te pourtant on s'est abstenu. et pour ce cas précis lan moo leen tere woon. oui parce que nous avons des des question nous avions comme beaucoup de questions. questions nous avions beaucoup de questions surtout question bi nga xam ne moom lañ martelé démb. ndax les crimes ndax les crimes de sang parce que pour dire vrai pour dire vrai loi d'amnistie bi am na ci loo xam ne euh, dañ ci gis suñu bopp. comme lan. lu ñu ci gis suñu bopp mooy euh, dañu xam loi d'amnistie c'est quelque chose de général et impersonnel mais lu ñu gis suñu bopp mooy boo seetloo le les événements marquants dañ ne vingt vingt et un vingt et un mois de mars deux mois de mars ña ñoo nekkoon ci terrain bi di woote résistance mais c'est le Pastef mhm. kon donc ça nous concerne directement sans se voiler la face ah ça nous concerne directement parce que ñu ñoo jàmmaar la woon ak régime bi mais on l'assume ay crime la waaw mu d'accord moo tax ay faits yoo xamante ni tellement grave oui donc yéen bu nekkee da ngeen woote et que yéen vous n'avez rien à vous reprocher mhm. lan moo tax ngeen war a voter ay euh, yoo xam ne day effacer ay crime ak yu demee noonu au contraire da ngeen war a xool luy indi lumière sur ces crimes ak yenn déclaration ou yenn xam nga on n'a jamais dit qu'on vote qu'on va aller le projet de loi on a jamais di cela mais on n'a jamais on on, on s'est que ne nañu fexe ba xool projet de loi bi lan ak lan moo ko wund ba ñu teg ko sur la table parce que tam quoi qu'on puisse dire ñun kenn fekkuñu ci suñu victime yi kenn nag gis naa nag des avocats de circonstance. non loolu dinañ ci ñëw parce que yéen euh, je vois que depuis démb yéen a ngi insister ci <laughs> ah, loolu. comme si euh, voilà da ngeen da ngeen mais loolu dinañ ci ñëw. mais xam nga bu ñu defee projet ci loi bi ci boppam projet de loi mis la table et sur les exposés de motifs on vous parle d'apaisement de paix mais qui veut pas la paix mais ñun suñu jóg ba ñu def suñu projet bi le Pastef musuñu wax ne dañoo bëgg jàmmal sénégalais ñun jàmm lañ woote depuis le début. nous avions un projet suñu leader bind livre solution ne man Sénégal lii mooy diagnostic gi fii laa yóbbu bëgg a yóbbu Sénégalais ci jàmmal Sénégalais yi mettre nos au cœur de l'humain ñun loolu la ñu indi woon. mais à la première appréhension ci loi bi ngeen tiim ñu ne leen loi bi mooy loi d'amnistie d'amnistie mhm. nga xamante ni ay faits graves ak crimes ak yooyu lay effacer. Mhm. est que loolu war ngeen yéen. dugg ci biir sax di xool lu leen fa arrangé lu leen fa arrangé wul xam nga lu tax ñu koy def mm. parce que constitution lañ ko jukkee indi ko ba président président euh, la république moo am prérogative mettre mettre sur la table une, une loi d'amnistie xam nga ci constitution la jóge bu fekkoon ne bëgguñu ah, loi d'amnistie dañ koy jindi suñu constitution mais dafa nekk suñu biir constitution donc dafa euh, euh, dafa am loo xam ne bu bu fekkee am na si vous êtes légaliste dañ koy teg sur la table et ça date du tey rek la musa am. lan moo leen arrangé ci loi bi. Euh, du enragement c'est pas de l'enragement. Hmm. mais si non, on cible une périodicité non une, si une périodicité. Mm -hmm. pour dire que ne de telle date à telle date foofu lépp lu fa xewoon ci jàmmaarloo ci wàllu politique ci kàddu sax yooyu yëkkati woon wax ko yooyu yëpp dañ ko bëgg a te ñun ci période boobu ñun ñii waa Pastef. jàpp nañ leen nekkoon taxaw temm doon xeex ñu accusé ñu du lu ne ñii ñu jàpp suñu ñooñu ñii ñu dóor leen ay bal ñii ñii ñii ñu blessé ñii dee mais loolu daf ñuy concerné au plus au niveau. loolu dañ koy buñ koy liir xool ko càmbar ko xool la pour et le contre. Mhm. de cette loi. parce que nag loi d'amnistie bi ñun jógewul jógewul nii rek nii rek ñu indi ko tegal ñu ko forcé ñu ko parce que dafa bokk ci constitution. président de la république am prérogative moom bind loi si bu ko indee au niveau de l'assemblée nationale ñun en tant que député dañuy du ñu ñëw rek sànjaafu ko wala ne noo un non catégorique wala un oui catégorique pour rek taxaw déedéet dañu koy xool moo tax commission technique. Mm-hmm. wax dëgg yàlla permettre nañ nit nga am améliorer un projet de loi ou une proposition de loi permettre nañ nga ne noonu lii dama bëgg ñu retirer ko par des amendements. mais nag bu ñu demee nag ba plénière bu ñu demee dajale loolu nag ba waxtaanee ko parce que on est un groupe parlementaire suñu demee nag ba waxtaanee ko. Mm-hmm. ñu ne ñun suñu décision finale lii la. te bu ngeen seetloo ñun suñu décision finale c'était très simple lii moo am lan la ñuy effacer est-ce que dañuy bàyyi ces victimes là ñi nga xam ne tey jii dañu seen doom yi dañ cee génn àdduna wala ñii dañ cee génn àdduna loolu duñ ko leeral ñun dañ ne tant loolu leerul ñun droit bi mënuñ ci gis suñu bopp taxawaay boobu lañ amoon. donc on a bien de député ngeen gis démb à l'Assemblée nationale ñu interpellé euh, le le le le le euh, madame le ministre garde des Sceaux sur cette question là même ñi nga xam ne nekkuñu Pastef hors Pastef wala sax bokkuñu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ils ont mentionné cette question amoon nañ ci réponse bu favorable non non amuñu ci réponse bu favorable léegi Yewwi Askan Wi le groupe parlementaire lan la voté à l'unanimité non ce que def na vote à l'unanimité déjà oui non à l'unanimité non à amul kenn ku voté oui. c'est-à-dire pour d'accord ci ci loi bi. amul kenn ko voté oui. léegi euh, contre boobu ngeen voté c'est-à-dire vote bi ngeen def contre cette loi lan moo ko justifié euh, essentiellement lan moo tax peut-être lu nekk ci biir loo xamante ni da ngeen naan lii moom moo gën a tax yéen ngeen daal di. opposé les crimes de sang devaient être hors de portée. seulement seulement ces crimes de sang. les crimes de boobu rek moom moo leen déranger ci loi bi. la vie humaine est sacrée. ñooñu il faut ñu rendre leen justice parce que ñooñu moom munuñu bàyyi seen parent parents mënuñu bàyyi tey parce que ñun xam nañ ñun ci fekk ñun. waa mm-hmm. Pastef comme ni ñu ko doon waxee démb yaa ngi wax ne ñoo ngi ci doon waat ñun xam nañ luñ ci fekk. xam nañ luñ ci fekk moo tax côté loolu moom aussi munuñu ko pardonner parce que xam nga amnistie en quelque sorte c'est accepter le mm-hmm. mais dafa nekk loo xam ne neexul a kenn mënu ko pardonner. soo ko pardonner sax yow mun nga am àq. parce que du yow yow yow yow ñun ñoo ko tegoo woon ñun ñoo taxawoon ne ñun dañoo jukki ci jukki jukki ci constitution bi ne dañuy résister dañuy résister ak ak lu ci conséquence yu découlé yëpp aussi on l'assume parce que ñu dañoo nekkoon parti politique am un leader charismatique bu taxawoon ne moom fii la bëgg a jëmee réew am ñu jàkkaarloo moom ne ko doo fi doo doo doo fi wax. demoon nañ ba defa defatuñ ko woon citoyen sénégalais sax demoon nañ ba defatuñu woon citoyen sénégalais et à l'origine quest ci qui est à l'origine 2021 si vous vous rappelez dem nañ fi modifier code code pénal ak code de procédure pénale pour dugal ci lan que ne des manifestations politiques yi nga xam ne dafa découlé wut ci ay échauffourées mun nañ ko qualifier d'acte terroriste est-ce que c'est sérieux à l'origine du loolu la loolu moom moo indi situation yi ngay gis ñu dund nii yëpp loolu moo ko indi moo tax man mii ñu xool ma man ma nga xam ne man Ismaïla Diallo bi tekkiwul dara fii la yoroo biir Sénégal lépp lu am fii la ko amee moom la ñuy xool parce que lan dafa bokk ci benn parti politique ñu lay joxoñ naa la terroriste nga ñu lay joxoñ naan la rebelle nga parce que da am position ci réew mi te pourtant ñun position bi ñu am ci réew mi aussi ci constitution moom moo ko jukki moom moo gouvernement am na waaye opposition aussi tamit may nañ ko mu am ci Sénégal te demoon nañ sax may opposition de plein mu mu mu mu am de plein droit parce que demoon nañ ba fi wax ne dañ dañ koy dañ koy jox statut ana statut boobu. Mhm. man je pense bu ñu respecté woon li nga xam ne moom mooy euh, charte ndewu réew mi c'est-à-dire mooy la constitution wallahi du ñu sonn ku nekk na nga am taxaw nga dëggal sa bopp. parce que tey jii mu ngi nii cette situation où vraiment candidat bu nekk day dem jaay boppam ñëw après taxaw ñu dem élection ku mën sa morom duma et <laughs> ensuite ñëpp dinañ topp ci ginnaaw le le le futur président de la république. mais mais léegi yéen euh, loi bi euh, certes vous avez voté contre. mais euh, daal nañ koy adopté mm-hmm. c'est-à-dire tey aujourd'hui mën nañ ni mën nañ ko promulguer d'ici à quelque temps mm-hmm. est-ce que da ngeen di bàyyi noonu mu mu jàll parce que quoi que l'on puisse dire am na fu mu leen arrangé mm-hmm. wala da ngeen di def recours pour euh, pour pour pour ñu. bon c'était hier lañ ko adopté en tout cas depuis lors euh, démb la ñu tasaaroo presque guddi woon na euh, nous avons un groupe parlementaire on est organisé on va statuer on va statuer loolu moom vraiment mënaguma ci wax parce que musuma toog fenn ñu nu waxtaanee ko mais xam naa bu ñu jógee ci lii dinañ toog waxtaan parce que à chaque fois ko vraiment bu ñu indilee loi parce que sur la proposition du report des élections defoon nañu recours. Mm-hmm. n'est-ce pas donc bii aussi tamit de la même manière noonu lay demee dañuy. nekkul loo leen waxtaanee au préalable. que tey bés bu loi bi parce que. au préalable musuñ ko waxtaanee. ah mais yéen depuis quand vous. ngeen di agiré noonu on dirait que <laughs> loo xamante ni lu leen di bett ci ay mbirum kii wak yooyu cest à tout le temps da ngeen di euh, conséquent ak seen ay actes. Mm-hmm. tey loi bi dañ koy voté wala duñ ko voté buñ ko voté lii la ñuy def pourquoi euh, aujourd'hui vous préférez attendre. Euh, parce que ñun ba démb xamuñu woon ndax day jàll wala du jàll. ah mais war ngeen war ngeen war xam que parce que suñu mbokku suñu gis ngeen jëloon nañ seen suñu mbokku waa PDS yi jëloon nañ seen position mais ban schéma ngeen di ngeen ah, après chaque situation bu nekkee da ngeen koy voté loo leen fas yéene def non non non mais xam ko jël sur des situations pareilles surtout en en procédure d'urgence yéen daal da ngeen catégorie wul ci loi bi non non non xam nga ñun dañu dëggul ma euh, asu y a y a deux cas à l'Assemblée nationale des fois ñu jox la projet de loi boo xam ne mën nga jël sa temps bu large def ay séminaire ci projet de loi mais bii c'est à à l'espace de vingt quatre heures au moins de vingt quatre heures nga ciy nga ci statuer loolu nag vraiment boo boo ci defee bés boo ci defee parce que c'est vrai que l'opinion publique à un moment donné ñu ngi yàkkamti woon mais. bés boo ci defee vous avez reçu des pressions avant le le vote. bon nit ñi ku wax leen def leen nii daxee leen nii loi bi nii mais ñun wax dëgg yàlla on est assez responsable et fii wax dëgg yàlla en ce moment là on est aguerri au niveau de l'Assemblée nationale parce que tey jii bientôt deux ans wax dëgg yàlla bu fekkee ne tey jii am na déjà lu nekkoon sa xel boo demee ngay def pratique parlementaire dina am di nga am tolluwaay. démb ci pratique parlementaire lañ nekkoon et dañuy continuer nekk ci pratique parlementaire ñun on a un groupe parlementaire bien organisé on a un président boo xam ne à chaque fois lépp lu ñu def dañuy toog waxtaanee ko xool fu ñu ko jëmee je sais que d'ici ce soir wala tey tey tey tey di nga gis dañ woote ñu ne voilà loi bi euh, jàll na léegi qu'est-ce qu'on va faire parce que tam on a huit pour def suñu recours yóbbu ko mhm. conseil six jours on a six jours pour def suñu recours yóbbu ko conseil conseil constitutionnel et statué dans dans dans dans dans les huit jours. bi ñuy reporté élection yi yéen da ngeen waxtaanee woon euh, def recours bés bu ñu ko reporté. non non wala da ngeen doon xaar. musuñu ko waxtaanee ngeen reporté ko ngeen toog waxtaan. musuñu ko waxtaanee je ba ñuy def recours bi ba ñuy def recours bi man peut-être jour boobu je rentre ñibbi naa sama kër. il a fallu que ñu woowaat ma pour pour une pour une signature ma doog a wu ñëw signé parce que ba ñu demee toog eh, statuer waxtaan ak ñëpp parce que xam nga tamit au delà du groupe parlementaire nous avons nos leaders nous avons nos entités politiques donc waxtaan bu yaatu la ah. parce que ñun bu ñu waxtaanee au niveau du groupe parlementaire mais après dafay nekk une une discussion large boo xam ne dafay concerner maintenant les entités politique ñoom ñëpp ñooy dem d'accord parce que yàlla yeewi aussi ah ñooñu les leaders conférence des <laughs> ñëpp dañuy waxtaan pour que ñu xool fu ñu est-ce que est-ce que bi tey euh, yaakaaroo ni bu ñu demee ba ci même beneen régime même si que am na ñu nga xamante ni ñi ngi euh, ñi ñi ngi gis xeet peut-être xeetu situation bu demee noonu beneen régime bu ñëw en place daal di koy abroger pour juger les faits euh, tey est-ce que tey ñi nga xamante ni loi bi bés bu ñu ko promulguer ñu libérer leen ba noppi ñu bëgg leen delloo si waat pour juger waat leen loolu xeetu mbir mu mel noonu est-ce que yaakaar nga ni mën na mën na am ak surtout bon, en fait, je suis pas je suis pas dans les secrets de Dieu mais je peux parler pour moi-même parce que je suis humain je suis sénégalais bu fekkoon ne tey jii dañ ma ñëw ñu laaj ma ñu ne ma fan lañ jëm suba man dama naan nañ jàmmal sénégalais man dama naan essayons d'avancer un peu quoi depuis 1960 on est en phase stationnaire au Sénégal san ne bouge man astu man li ma gëm mooy tey jii ñun bu fekkee ne ñun lu ñuy woote mu ngi ci ñun dañoo yëkkati ci suñu loxo xam nga tam. engagement politique du lu ñu forcer kenn yow yaa toog ba xam ne ne lii nii dama ko war a def peut-être peut-être sax mun naa ci yeggale sama jaamu yàlla ma yëkkati sama loxo man ne damay taxawal askan bi damay waxal askan bi bu ñu nattoon li ci ne parce que tey astu toog toog këram am ay jaaxle man mii ma ne a Diallo man man am naa taxawaay boo xam ne war naa mun a waxal astu ci jafee jafe ah wax dëgg yàlla boo ci taxawul yaa ngi amee ak astu man loolu laa gëm contrat moral la mais également yow astu mii dem ba nangul la parce que asu bu la nangulee ba tey jii jox la ndombo tàng tey jii le fait que ma nekk député parce que ah, hier j'étais rien di tout ah j'étais entre quatre murs toppatoo sama liggéey astu mm-hmm. mais imaginez astu ma yëg astu am confiance ci man wala euh, euh, sénégalais beneen citoyen ne ne ma ah docteur Diallo léegi yow fal nañ la député mais responsabilité boobu aussi tamit c'est un acte c'est un contrat social kii ma lii avec ce citoyen là waaye léegi nag loolu man lan laa ciy def nga citoyen boobu daf ma daf ma daf ma teg fii pour que man suba may dóorante di xastante di dox leneen loo xam ne du jàmm mais imaginez à chaque fois fii Sénégal manifestation bu doon am même ku bokkuloo ci manifestation da ko yëg même ku bokkul ci manifestation koo xam ne dafa bëgg dugg soxlaam koo xam ne dafa bëgg liggéey da koy yëg combien de fois manifestation am fii da ngay gis ni Dakar est déserté donc yéen vous venez de vous rendre on on ne vient pas de li ngeen doon seen plan yi ngeen doon def c'est-à-dire euh, méthode bi ngeen doon utiliser ce n'était vraiment pas. ah, ah su ban méthode lañ doon utiliser ah, bi gënoon approprié. non ban ah, méthode mais tey parce que yaa ngi ne jàmm bon xëy na danga koy jéem a wër-wër loonoo mais man li ma dégg mooy yéen jamono jii daal ku leen woo si jaloo ngeen dem. non ku leen woo ci waxtaan ngeen dem pour. apaisement xam nga xam nga président Ousmane pour être plus bref et puissant xam nga moom tooñul kenn. nañ à l'origine nañu xool rek ndax président Ousmane Sonko wàcc na ci terrain bi tooñ kenn président Ousmane Sonko acteur politique la ñu mettre en place un parti politique ñu ne ñun suñu ligne directrice lii la on est radical ci li ñuy def bu dee rouge na ñu ne rouge na bu dee xonq na bu dee bu dee ñu weex na ñu ne weex na ci loolu lañ taxawoon yor aussi tamit suñu suñu suñu suñu organigramme yor suñu programme di ko doxal ñu ne kii kii nii du fi nekkee lii mais lan ngay def mais nag ñu ne la yow ñu ne la yow mii tey jii yor sa parti politique ànd ak say ñoon tey doo réussir li ngay def di la saaga di la dóor di la xas mais yow jëlal muus nga dugg ko entre quatre mille nga di ko dóor bu amul fu mu jaar ci sa kaw lay wëlbatiku c'était juste ça. léegi loolu jóge na fi. mais loolu jóge na fi parce que tamit disons-nous la vérité ñoom ñoo def seen loi d'amnistie nee naa loi si ah eh, maa ngi président la république lan moo indi loi si bi. ah man nga koy laaj. ah ñëpp a ngi koy laajte. Oh, ah léegi da léegi doo ko laaj ko ko indi. avant avant cette loi. le président de la république de Macky Sall. Euh, des libérations moom def na déclaration no am na ay libération yu fi am na déclaration. oui moom moo ne dafa bëgg apaisement. Mhm. moom moo ne dafa bëgg jàmm. bu ñu ko posé question à savoir euh, dégg naa da ngay waxtaan ak diw ay mu ne ma mu ne ko ay nit boobu ba tey ñoom may woo. mais kon c'est clair mais <laughs> man kër ga su ma mag wala ak sama rakk bu ñu juboowut mais am naa sañ-sañ man dugg seen diggante ne dama ciy wax on est des on est au Sénégal ah mais bu weesoo loolu président de la République du Sénégal il est le président de tous les Sénégalais nous loolu dañ ko mu a accepter. je vois que vous avez calmé un peu. Vos... nous avons tous accepté qu'il est le président. dans la république du coup la gis naa discours maintenant d'apaisement quand même boo xamante ni un peu différent ak euh, bu ñu tàmm di gis ci yéen waa mais asu mais oui c'est ça la vie démb terroriste la ngeen ay rebelle ngeen ay salafiste ngeen ñu taxaw temm tey apaisement jàmm ñu taxaw ne ñun Sénégal moo ñu ñor Sénégal lañ bëgg mu avancer Sénégal moo taxoon ñu jóg Sénégal moo taxoon ñu bàyyi suñu yitte ñëw wàcc loolu musul dañ léegi nag euh, ku nekk na nga yem fi nga war a yem sa morom. ku nekk na nga respecté sa morom li fi xew jugé guñ ko. on mhm. de torture il y toujours des militants de en tout cas vos militants yoo xamante ni ba tey ñi ngi ci kaso yi. Mhm. et vous venez de dire que euh, li fi xewoon lépp jeex na et tout ça. ah wax musuma la wax loolu. seen leader sax non non da lan moo tax tey léegi ngeen bëgg apaisement. wala ngeen bëgg ci rejoindre mais même seen leader sax mi ngi ci biir. Euh, euh, yow yow yow déggoo li ma déggoo li ma la wax li ma wax de danaa la à l'origine ñun. Mhm. ñun jàmm lañ jàmm jàmm jàmmal askan bi ci lañ taxawoon xam nga jàmmal bi mooy lan mooy fexe sénégalais lambda sénégalais bi ak fu mun munti nekk au Sénégal su xëyee nekk si jàmm xam nga xëy ñëpp si jàmm mooy maa yow lu ñu def nii ñu joxante rendez-vous dañuy def émission ñu mun a ñëw def suñu émission man ma war a dem liggéey ma mën a dem liggéey ma bëgg a am dem ñaq am ma jàng ba am ay diplôme mën na liggéey ñi ci àll bi bu ñu waree bay seen seen seen ñaq yegg si seen jiw yegg si bu ñu jiyee luñ ciy war a am tamit mu am loo xam ne seen doolee poos lay doon ñun si loolu lañ nekkoon ah loolu mais loolu fan lañ ko ci lan lañ ko mën a def depuis quand le Sénégal est dans l'impasse parce que ku ci nee da ngaa toogoon si tax am am sa taxawaay ne la man kat du ma nangu yow nga may faagaagal. et c'est très normal. et c'est trop normal du ma nit ki moom boo taxawee ne am daa am fu nga bëgg a ñëw te jàmm nga bëgg a wat keneen ñëw taxaw di la faagagal da taxaw xeex waaye mais kii la doon xeex yow mu ne la moom xeex bi jeex na <laughs> xeexu ma te ñun aussi tamit à un moment donné on avait dit carrément xeexuñu xeexuñu xeexatu xeexuñu xeexaanuñu dañuy dem élection parce que amoon nañ xamoon nañ nañu on est majoritaire daa ce pays la élection bu ñu fi teg mun nañ ko gagner kon daal jamono ji balaa teer nañu dem élection balaa bi duñ ñoo ko def de. guerre bi jeex na. déedéet du ñoo def guerre bi de. alors euh, ñi ngi ñi ngi euh, mën nañu wax aussi ne depuis bi seen leader di Ousmane Sonko nekkee ci prison bi euh, c'est vrai il est en prison mais euh, dañ doon sentir ki mi ngi doon communiquer quand même euh, par par par voie de de de ces plateformes. à travers ces plateformes digitales ci yenn questions yi nga xamante ni ci des questions euh, d'actualité ba ci sax li nga xamante ni moom moo jëm ci vidéo yooyu mu commencé woon génne pour euh, concernant le choix de de votre candidat mais dañu gis ñaari mbir yoo xamante ni am na te dégguñu ko dégguñu ko ci même pas euh, benn message boo xamante ni bu ñu rapporté venant de lui mu di mbirum report bi ba ñu koy voté ak tey li nga xamante ni moom moo jëm ci loi d'amnistie bi comment comprendre aujourd'hui ce mutisme de votre leader face à ces deux situations là qui se sont déroulées non pour le premier cas mooy vidéo yi génnoon là peut-être euh, il anticipait sur une situation politique il anticipait sur une situation que boo xam ne mu njortoon na ne lii mënoon naa am. géntoon na ko daal. du gént parce que xamoon na ne moom dañ ko bëgg a tere mu nekk candidat. te xamoon na ni Bassirou la ñuy tànn. déedéet déedéet ñun on était dans de plusieurs choix on était dans un parti mais également on était dans une coalition léegi nag il fallait nag vraiment mu élargir parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'origine ba mu demee ba ñu ñu toll ci nag dem leen wuti fiche de parrainage qu'est-ce qui s'est passé dafa ne dañoo wax ne diw ak diw rek dem leen jël fiche de parrainage. Mhm. jiw jëloon na ñëpp ah ñoom bi borom Souley ñoom ba ñoom euh, kii ñoom euh, Abass Fall ñoom El Malick ñëpp demoon nañ jël fiche mais ci alliés yu aussi waxoon na ne diw dem leen jëli fiche de mu am mu am de candidats yoo xam ne nag mu ngi koy préparé kon keroog bañ ko barricadé moom moom mu ngi naan ci barricadé bari lii fii ma ñu barricadé xëy na xëy na mën naa réussir. Mm-hmm. ma nekk candidat waaye comme mën naa bañ a réussir ma nekk candidat et malgré tout. malgré tout cette pléthore de candidature yi nga xam ne dugal na ko moom mu ngi doon continuer di xeex pour nekk la candidat et au finish seetlu ngeen et <laughs> à la dernière minute ci candidat spolié la bokk bu ngeen di seet ndax moom demoon na ba fexe ba dugal candidature am ba ñu ba conseil constitutionnel statut donc loolu mun ko ko xam mais lii xew nii mënu ko xam loolu mënoon na ko xam mais lii nii war a wax dëgg yàlla mënu ko xam non mais lu avant loolu il communique euh, gis nañ ko mu wax ci yeneen fee yi nga xamante ni mu ngi doon am ba donc ça se demandait est-ce que peut-être ce ne sont pas des messages yoo xamante ne transmis peut-être par des visiteurs ou man de astu li ma jàpp li ma jàpp mooy posture bi mu jël nii man mhm. dama ci ànd ak moom être sous silence xam nga lu tax boo demee ba yàlla may la dëgg da sant yàlla bu baax a baax a baax luy wax yow yaa doo yaa yaay yaay terroriste bi yow yaa indi fitna ci réew mi ñu dem ba ñu ne yow yaa mën a indi jàmm ci réew mi ah mais dama koy sante yàlla man nag man vraiment démb sax dama ko bëggoon naa bëggoon naa ko def bi sax à niveau de l'Assemblée nationale ne man aussi je croise les bras nii laa def comme le président Ousmane ko jàpp sama njaamur di doglu lan la am lu muy wax waxoon na ko te et te et lu gën a neex mooy il toujours di il toujours di moo taxoon chaque fois da doon woo ses alliés da doon woo l'opposition que ñu def yéen lan keroog report bi ba mu amee noonu waxoon na leen. Uh-huh. mu rappelé naa leen ko ne naa leen président Ousmane Sonko lii yëpp prédire woon na ko ne woon na man président Macky Sall bu jotee ci man dina def leneen ak leneen lu ko neex ci réew mi te du ngeen ci man dara. yaakaar ngeen ni bàyyi na njiitum réew mi bàyyi na comme ni mu ko annoncé dans les plateformes euh, au dialogue ak euh, feneen ak feneen beaucoup d'occasions quand même. waaw bon xam nga moom moo ko wax ah parce que man man président Macky Sall yàgg naa ko. déglu de te gëm ngeen ko. président Macky Sall yàgg naa ko déglu de. Mhm. malgré daf dafay def discours bu dëgër. mais gis naa ko toujours mu bàyyi benn brèche xam nga boo seetloo il y a mois il y a sept mois le mois de le 3 le 3 juin. Euh, defoon na sorti après après les les événements du premier join la le 3 juin il avait parlé bon dañuy décision de justice yëpp dañ ko appliqué du ma bàyyi force restera à la loi et tout mais gis naa ko mu génne woon benn brèche mu mu mu ne mais je tends toujours la main. ah dialogue moom yàgg na woote dialogue. waaye léegi man jour boobu est-ce xam nga à l'Assemblée nationale man taxaw naa ci pupitre bi ne président Ousmane Sonko ak président Macky dañoo war a waxtaan dafay première parce que au-delà que je sois dans un parti je suis député il est te député. boo demee sa logique boobu ba tey. man waaw man maa ngi sama logique boobu man damaa gëm ne pour jàmm am Sénégal. bu amul ba pare. bu waxtaanee pour jàmm am Sénégal non non man pour man jàmm am Sénégal loolu laa mës a gëm man kii mooy président de la République am na fu ko yàlla tollale kenn mënu ko bañ même bu fekkee ne on est foncièrement contre sa politique. foncièrement contre et jusqu'à présent dama jàpp ne nguute gi ñu nekk nii ko teg il président la République du Sénégal yàlla dogal na ko kenn mënu ci dara waaye tamit boo demee de l'autre côté il y a un autre peut-être y avait un autre parce que dans la vie c'est comme ça Khalifa jaar na fi mu amoon benn position nekk euh, euh, dans son apogée Karim Wade peut-être tey ñu ñëw Ousmane Sonko yàlla moom la dogal moom moo nekk ci kanamu Macky Sall loolu kenn mënu ko dindi tamit. loolu la yàlla dogal léegi nag ñaar ñooñu bu ñu nekkee nga xam ne sénégalais yi dañ leen di déglu Macky Sall am na ay ñooñam ñoo xam ne moom la ñuy déglu. Mhm. parce que fee assemblée moom moo fa am majorité lu mu fa bëgg kon ñun aussi am nañu majorité boobu Ousmane Sonko aussi tam am na taxawaay boo xam ne moom ku mu woo nga wuyu si ko. ñaar ñooñu bu ñuy jàmmaarloo di xëccoo ba muy jur safaat. Mhm. pour jàmm am du ñu du ñu toog. waaye toog ak sincérité lépp bu ñu ko tegee ci sincérité xam na nag au delà de nous nos personnes il y question bu mujj bi mooy loo leen di reprocher opposition bi parce que yéen a bokk même euh, li ngeen di bëgg muy euh, c'est-à-dire avant vote euh, li nga xam ne moom moo di loi bi ñoom ñëpp dañu génn daanaka plusieurs euh, leaders de l'opposition wax ne ñoom bëgguñu ñu voter li nga xamante ni moom moo di loi bi mais yéen ngeen retourner di leen critiquer tout simplement parce que mel na ni gisoo leen woon seen wet ci yenn moment yi. waaw ñun ñun ñun ce que constater mooy wéetoon nañ avec nos détenus politique wéetoon nañ avec nos victimes. ñoo blessé wéetoon nañ trop trop trop ci ñi nga xam ne ñoom ñoo perte seen njaboot wéetoon nañ ci lool kon ñooñu bu ñu toogee ci une situation politique ñu ñëw taxaw ne dañuy nekk des avocats de circonstance de non victime naan na ñun la ñuy rappeler ñun la ñuy rappeler te ñun on a mis deux cent quarante millions presque si ñuy détenu politique et je ne parle pas de la commission sociale je ne parle pas de la commission santé et protection sociale bi nga xam ne docteur Cissé moo ko jiite nga xam ne fu nekk dans le Sénégal dañ fay déplacé wu pour di seet ñu tëdd nga xam ne dañu def paraplégie mooy nga xam ne mënatoo dox. ils n'ont pas leur mot à dire daal ci. bon ils n'ont pas leur mot à dire pour nous rappeler. kon lu PDS wax dëgg la loi bi seen loi la. PDS mu ne suñu loi la. Ah, ñoo ko dëgg seen arrangement la mais bu doon suñu loi bu doon suñu loi bu doon suñu loi la bu doon suñu loi la proposition de lay doon parce que ñun on n'est pas président de la république ñun peut-être yàlla def na ay député lañ bokk ci nag ex-Pastef xëy na ñun mënoon nañoo def proposition de loi sax mu nekk ne ne proposition de loi d'amnistie sax xam naa ne sañuñu ko tax amnistie wax dëgg yàlla <laughs> prérogative bu président de la république la léegi nag amnistie ñun mënuñu ko def kon mënul nekk suñu loi mm. waaye mën nañu tëgg ab loi d'amnistie nga lire loi si bi ñu ñu def ko sur une période sur un temps boo xam ne ñun temps boobu xëy na dinañ ci di dinañ ci dugal. temps boobu nag moom mooy ñun ak le président Macky Sall dañoo jàkkaarloo woon. merci honorable waxtu wi jot na ñu la jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon honorable député docteur Ismaïla Diallo moom lañ fi dalaloon tey ci seen euh, dernier numéro de la semaine bu matin bonheur di leen jox rendez-vous demain soir pour euh, bien sûr euh, lii jëm ci décryptage actualité de la semaine comme ni ñu koy defee mais en spécial 8 mars avec les femmes politiques rendez-vous demain incha allah merci beaucoup à toute l'équipe technique et passez une excellente journée